central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine si seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa ajo daal di faju ma ne dinga fa am termus yu mucc ayib série de bool inox muna wala bool méchoui aji jaara plat inox yu dëgër glacière yu baax yii te am garantie tànnal si karaaf ngoonal yii ma ne verre à eau ak verre à boisson yii daal ak baraada yii ma ne fii am na ay paan yu jongama soo banna ak lave-main bernde te des na jamono yi nga xam ni fagaru dafa gën a am solo central équipement indi na ndimbal bu baax lu si mel ni emballage alu barquette ay gants ak tasse à jeter en papier central équipement di la jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi moo leen jagleel accessoire de décoration yii drap lii lit sax desul ginnaaw boo bëggee ñëw central équipement toppal tegtal yii. bu dee oto nga yor. jaaree buntu Pikine da ngay topp déviation bi ba ci station Ciel Oil boo jéggee barrage bi romb Sivop première mbedd bu dee nag da ngay dox wëral rond-point ca e koñ bu njëkk bi à droite central équipement ibbil na leen ay buntam du lundi au samedi de 9h à 18 h Assis. di Serigne Abdou Assis. Assis Aly Ndiaye. Abdou Assis Aly Ndiaye. ak mboolem délégation yi àndal yëpp. ak mboolem délégation yi mu àndal yëpp. ñu ko Cheikh Sa Cheikh Samb mi waxee léegi. ñu ngi ñu ngi boole Cheikh Samb mi nga xam ne. ni mu ko waxee léegi ni mu ko waxee léegi rek. noonu la noonu la demee. yitteem ak taxawaayam. yitteem ak taxawaayam. ak pëstéefam. ak pëstéefam. moo waral lii. moo waral lii. akuk rafetalam. akuk rafetalam. di nuyu sëriñ Maxtaar moom itam bu baax. di nuyu sëriñ Maxtaar bu baax. di nuyu Mouhamed Sylla mi nga xam ne moom la yéene bu ñëw. li nuyu Ahmed Silla mi nga xam ne moom la àndal. ak rakkam yëpp di sëñ Baye Ndiaye. ak rakkam yi ñu àndal yëpp. di sëñ Baye Ndiaye. di Baye Ndiaye. magam yëpp. ak magam yëpp. ak mboolem ñi mu àndal yëpp bu ma limee damay ak mboolem ñi mu àndal ñëpp bu limee day juum. ndax ñoom ñëpp moom moo leen yëkkati. ndax ñoom ñëpp moo leen yëkkati. loolu tam li ci jublu. loolu itam li mu ci jublu. mënoon naa ñëw moom képp. mënoon naa ñëw moom dong. waaye fonk bi mu fonk dikkam gi. waaye fonk bi mu fonk dikkam gi. ak lim ci jublu ci rafetal. ak lim ci jublu ci rafetal. moo tax mu woo leen ci yéen ñëpp. moo tax mu woo leen ci ñoom ñëpp. muy loo xam ne symbole bu mag la. muy loo xam ne symbole bu mag la. ci diggante Touba ak Tivaouane. ci diggante Touba ak Tivaouane. nan la ko daa waxee rek. nan na ko daa waxee rek. teraanga ji bari na lool. teraanga ji bari na lool. te lu fi xewil sa teraanga kenn du fi jiitu. te lu fi xewil sa moo fi jiitu. te dana ràññiku lool itam. te dana ràññiku lool itam. kon ñu ngi lay sant bu baax. kon ñoo ngi lay sant bu baax. di la gërëm. di la gërëm. di la ñaanal bu baax. di la ñaanal bu baax. sunu borom dolli kattan gi. sunu borom dolli kattan gi. barkeel liggéey bi. barkeel liggéey bi. ba li nga bëgg def ci lu baax lépp. ba li nga bëgg def ci lu baax lépp. nga am kàttanu mën koo def. nga am kàttanu man koo def. yaa ngi ñu ko seqal ñëpp. yaa ngi ñu ko seqal ñëpp. di la xamal daal bégal nañ bu baax a baax. ne daal bégal nañ bu baax a baax. ndax cofeel gi nga ñu ëmbal. ndax cofeel gi nga ñu ëmbal. ak jàpp gi ñu jàpp. ak jàpp gi nga ñu jàpp. xam nañ ko bu baax. xam nañ ko bu baax. te woyofu ci ñun. te woyofu ci ñun. te la ko lal. te la ko lal. mooy kulle sama diggante sa turandoo kóllëre ak sama diggante ak sa turandoo. muy Serigne Abdoul Aziz Al Amin. muy Serigne Abdoul Aziz Al Amin. yàlla suñu borom dolli ay leeram. yàlla na ko suñu borom dolli ay leeram. te dëgëral ak njabootam. ak njabootam. muy jëmm joo xam ne. muy jëmm joo xam ne. yàlla dañoo boole. yàlla da leen boole. boole woon. boole woon. boole bu dëgg. boole bu dëgg. mu am ci moom ak cofeel. mu am ci moom ak cofeel lool. ak jàpp jàpp. di jëmm joo xam ne itam. day jëmm joo xam ne itam. loo gën a jaxasoo moom. loo gën a jaxasoo moom. gën koo bëgg. gën koo bëgg. ndax jikko yi yàlla defoon ci moom. ndax ndax jikko yi yàlla defoon ci moom. ci bëgg nit. ci bëgg nit. ak tabe. ak tabe. nangoo joxe cër. nangoo joxe cër. ak dëgg. ak dëgg. jikko yu bari la yàlla dajale woon ci moom. jikko yu bari la yàlla dajale woon ci moom. yoo xam ne jikko yi kilifa yi jikko yi kilifa ju baax rek yàlla defal. di baaxoo. yàlla defal ci yàlla defal na ko ci moom. kon nag bu sama diggee moom demee ni mu moom demee ni mu demee. yàlla def mu dem ba néewatu fi. yàlla def mu dem ba nekkatu fi. lii nga di ko def ngir dàkk ci bëgg-bëggam. lii nga di ko def ngir dàkk ci ak bëggam. ak jokkale ñaari kër yi. ak jokkale ñaari kër yi. loolu rafet na. loolu rafet na. ndax loolu itteeloon na ko. loolu yitte la. it itteeloon na loolu itteeloon na ko. ku mos wéetal ci njabootam. ku mu mos a wéetal ci njabootam. da nga bokk ci ñi am yaakaar. te nga bokk ci ñi mu am yaakaar. dana la ko dee. dana la ko dee. rawatina ci man. rawatina la moom Cheikh Mouhamadou Bachir mii. kon nag ñu ngi sant bu baax. kon nag ñu ngi sant bu baax. ci jëf ji nga jëf. ñaan nga yàgg koo jëf. ñaan nga yàgg koo jëf. daje ceeg tawféex. te daje ceeg tawféex. suñu borom dolli sa xéewal yëpp. suñu borom dolli sa xéewal yëpp. ba li nga yéene. ba li nga yéene. bëgg koo jëf. bëgg koo jëf. nga def ko na nga ko bëgg nga def ko na nga ko benn gàllankoor bañ te benn gàllankoor bañ ci am. ci darajay bis ñu dëgmal. Sénégal mbokki réew mi